affaire góor jigéen moom defe naa lépp lu koy promouvoir dañ ko war a combattre jusqu'au dernier énergie quoi parce que gis nañ ne phénomène bi mën nañ ne sax Ouzin Keita moo ci gën a tuuti quoi. mu mel ni bu yàggul rek la ko mu def yoo xamante ni maanaam du fi góor te aussi moom moo balaa moom sax mais ñu dem na sax ba ñi nga xamante ni ñoo moom ci li mel ci habitude bi muy dund mel nañ ci yóbbaale te loolu naqar nañu a metti ni mu leer na la ay kilifa ak comportement bi mu doon doxee ak déguisement yi mu sol lu laal day wane daal kenn xamul mu doon parce que góor day def fi góor ndax mën ngaa sol yërey góor la mais baa moom ku ne xam ne jigéen a ko moom ba pare nga sol ay xama sànneeku waaw rob bi ak yu kenn xamul ak seen maquillage yi ñuy def daal day kenn waaw day nag boo xoolee ci lay nuru quoi parce que loolu moom war nañ war nañ bu baax a baax ndaxte du góor jigéen dafa doon loo xam lu bon lu lislaam nangu ko. en tant que ñun ñu nekk ay musulman nekk ci dëkku jullit surtout Sénégal gi nga xam ne nii réew yu bëree ko naw ci ni mu nekkee ku ci demee ni Ouzin Keita nekk ci réew mi nar a yàq deru Sénégal vraiment metti na ma trop trop trop trop trop su nekkoon loo xam ne nii mën naa koo faj tey la du tëdd ci lal te fajuma ko vraiment ni mi solo baaxul aussi moom ay rob ay dara ay caq ba ci léttu sax daf koy def boole ko takki fer kooku mënoo ko xaajale ki jigéen wax dëgg yàlla. affaire daal li ma si métti moom yàlla suñu borom la sàkk nga doon góor yàlla man la sawaay nga nekk naa a ngay jëm jël ay man affaire jigéen di ko boole naan yow góor jigéen bi góor jigéen loolu amul yàlla suñu borom dafa saak góor sàkk jigéen jigéen moo am góor moo am mais góor jigéen mënut a am. Ouzin Keita da lim def moom lëmbe na parce que moom ni doon doon homme public ba pare di sol colom googu ak melokaan bi mu mel. mën naa dooleel góor jigéen parce que lim la gis nga garaam bu bi lim sol solaat leneen. ngi ñëw à ndànk-ndànk di rampe. mais comme Ouzin Keita fësal na buñ ko combattre wax ci keneen aussi mën na fësal te waa ONG Jamra yëkkati nañ temps ay message yoo xamante nii daal affaire góor jigéen moom vraiment dinañ ko dindi ci Sénégal quoi parce que baaxul quoi day yàq société waaw bu fekkente ne nag dañoo dem ba am yoo xamante ni ñu koy dund mu leeral la def ñi mbirum góor jigéen la war nañ cee wax dooleel na góor jigéen yëpp mën naa presque dëkku jullit boo xam bu mel ni Sénégal nga xam ne ni référence la ci réew yi ñëpp di bëggee Sénégal vraiment xale bu ndaw bu toll noonu di yàq deru Sénégal daal wax dëgg yàlla état bàyyi ko ci. aussi bu nit ñi jugoon tey pour euh, fajee ko seen doole ñu ñu gisee ko neneen ñu gisee ko neneen wala ñu teg la loxo loolu daal état moo ci war a mën a jàppale jàppale ci sëriñ ci aussi dimbali leen bu baax baax daal vraiment ci li Ouzin Keita tey def. Ah, saafara si mooy ku defati lu mel noonu. yoon teg la loxo wala nit ñi wax daal ba loolu mën a jóge jël ko ci suuf woo ko ay góor yàlla ñu ne ponkali na fa foo koy jël ci ruq wax ak moom ci fulla li ko su ko su ko solotee nag ñu jàpp ko ma yaakaar bu jógee buy solaat dana xam li muy sol ak buy wax baal mais dafa jigéen wax jeeg démarche yeeg ñam ñam ji wax ma daa mi rab ñoo ko fi rab fop mën nañ koo Kayta kooku moom jàpp ko rey ko dagan na sax boo loo si am benn bàkkaar amul leen loo si am benn bàkkaar dara dara dara dara. vraiment Ouzin Kayta war nañ ko mettre à sa place xam nga yóbbu ko ci benn conseil de discipline xamal ko li nga xamante ni moo gën et puis wax ko li nga xamante daal moom la war di génnee ci ay sorteem daal. ba affaire bi mën a jaar yoon quoi mais vraiment li muy wane moom baaxul quoi trop vraiment avancé lu suñu réew moom. parce que xale def day def loo xam ëllëg ak si bi bu ko xale gisee dina ci mën a roy wala bu ko xale gisee dina ne ah kii kat li mu def baax na mën naa cee roy parce que loolu mën naa yàq xale yi doy na waar daal. nga média média média dafa bëri influence quoi surtout xale yi nga xam dañuy seetaan te xamaguñ meseuruñ quoi vraiment ñooñu suñ leen mënee jàppale ba nga xamante ni yenn image yi duñ ko mën seetaan ci télé bi da am solo parce que artiste day véhiculer image boo xamante ni vraiment ku gis day foog xale xamul dara quoi.